mbokk yi kon ñoo ngi del siwaat ci xasida gu tedd gi nga xam ne mooy jaalibatal maraaxibi fii ajilin ka ajilin li raaxibi tey la sunu ñaar fukkeelub jotaay ak juróom-ñett ci ñu ñuy topp incha allahu ci xasida gi di jaalibatal bi di leen siyaare bu baax baax mu mel ni démb ñu ngi ci bind bu am solo boo xam ne buñ ci taxoon mën nañ ci jàngat lu bari waaye rawatina bind boo ci dugg rek noonu lay mel waaye nañu ko waxee woon rek bëgguñee bàyyi benn baat boo xam ne ku déglu xasida gi danaan baat bi dafa ma lënt lu ko di waxee bépp baat rek bëgg nañ cee jaar ba mu leer naññ nga xam ne ku ñëw dana xam ne baat bi lii lay firi ku ñëw dana xam ne baat bi ndax loolu rek mooy suñu yéene mu mel ni kon démb ñu jàngoon bidd bu am solo balee woon wa ali wa sahbil muhajirin wali ab kaw ni surura sakilin fu sëñ bi doon jullee ci Yonent bi salaay sallam ak waa këram ak saxaabaam yëpp ñi nga xam ne ñooy gàddaaye woon jëmma jëm Madina ñaan yàlla mu may ko mu nekk moom jëmmi sëriñ bi di mbégte mboolem ñuy sant yàlla te loolu borom defal na ko daa daal di ñaanal yàlla na ko yàlla na nga doon la xéwal ci sang bi nga xam ne yaa leeral xolom bi waaye xéwal ko ànd ko mucc ndax mooy yónnentu tuub bi mais ku bëri leen daan tuub di dellu ci borom waaye salaatu gi na ñëw ba ci waa këram ak ay saabaam yëpp waaye nag salaatu gi bu mu ndakk rek ànd ko di bamp rek yow miy aji maye ak texe ak ay mbóot ak secret maa ngi la ñaan ba tey dalli ala man ismu arisu qabla aleykum xaq sul aris yàlla na nga dolli xewal ala man ci kaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ko bokk na ci turam mooy ku xir aleykum ci bindeef yëpp ngeen ñu jub waaye xaq soo safaan ma nag alxarisu mooy ku xir ba tey ci jullit ñi ci jileen ñeewantu ak bëri yéen mande ci ñoom nga xam ne kon ñaari arisu yi loolu rek lay tekki boo déggee aleykum gi ixtibaas la ixtibaas mooy nga jël baat ak jàmbur boo xam ne boo ko taxasaa yi doolu ko ci bind bind loolu muy ixtibaas moo tax bi mu ne xariisu qabla aleykum xam nga suñu borom def ne mi ne anfusikum xaajatun xali maa xanitum daal ne xariisun aleykum moo ci topp boo demee ci laay jooju dane xariisun aleykum Sëñ Tuubaa bëgg laa xamal nag ne aleykum googee xariisun googee nga xam ne moo njëkk aleykum ji moom laa leen di wax xariisun aleykum la wax moo tax muy ne ne xariisu qabla aleykum lu lu njëkk aleykum baat bu njëkk aleykum te mooy xariisun googu mooy dafa xër ci ngir ñu jub waaye itam ñi ko jotu gëm ñëpp te topp ñooñu dafa xër ci ñoom di leen ñeewante bëri yërmande ci ñoom moo tax ma ne sëli yàlla nga doolu ko àlaa man ci yéen bi xam ne ismuhu mooy ku xër xër maanaam nan ci nit ñi ngir lan di leen génnee ci ak kéeféer di leen yóbbu ci diine ngeen ñu jub xab la ci lu ci lu njëkkaan aleykum aleykum te mooy xariisun aleykum waaye nag soo safaana safaanam moom alxariisu ba tey ku xër la te mooy jullit ñi ñi nga xam ne dañ koo gëm topp ko daleen di ñëwantu di leen yërmante ba mbéyee ko fu ne na nga ko dolli mu ci mook waa këram ak saabaam yi waaye nag képp koo xam ne jaar na ci yoonu lislaam naa nekk di tekkiluwaayam nga xam ne kon ñaan la yoo xam ne ñaan la yu am am doole buñ koy jàngal moom jëbi sëñ nga xam ne yéeme kum yéeme waaye nag éloquent gi mu ci wàllum bind te baat yi fi mu ko war a tere la koy teg du ko jaawalante mukk moom jëmi sëñ loolu bokk na ci li ma gën a nawee ak mbindam moom sëñ bi radiyallaahu anhu na ko yàlla fayal ci jamono ju ne comme ko waxoon rek moom mbindam foo ko mën a yóbbu rek dañ koy mën a firi ba tey kon ñi ngi daane woon ci yaa baax yeen kaw na ko lii usaahidu sëli ala nabin suma usaahidu yow yàlla mi nga xam ne yaay gisee sax fa faw nekk gi ma nekkal dama jàkkaarloog moom dama koo seede jàkkaarloog moom gis naa ko kon nag yàlla na nga doole sol ci sang bi nga xam ne bokk na ci turam yi saahidu mooy aji seede yi waxoon naa la yàlla da ko wax na ko yaa ayyuhan nabiyyu inaa arsalnaaka saahidan googu nag moom la suñ tubaa indi fii delloo si fii nag saahidu léegi salaatu googu moom lay booyale ba tey kon salaatu googu ci lañ nekk mu ne salaatu bu mu yem ci yonent boobu rek waaye nag dina ñëw ba ci waa wa aali na ñëw ba ci waa këram yëpp wa sax bii ak ay saxaabaam yi nga xam ne al axlaami way kawe lañ ci ay daraja way yëkkatiku lañ ci ay daraja ñoom ñëpp kawe ay daraja waaye nag bi an fexaan gën cay jëriñu ikraami ak tiraanga wa salaami ak mucc waaw gën cay jëriñu ak tiraanga ak mucc nañ ko jël sotti ko ci kaw yonente bi ak i ay saxaabaam yi nga xam ne ñu kawe kawe lañ waaye nag loolee boo ko defalee yonente bi ak saxaabaam ak waa këram yëpp kon moom day géndee ko àla boppam sunu borom defal ko loole moo tax mu ne salaatu gu àlli na ñëw ba ci waa kër Abu Sa'd ak saaba yi xam ne al axlaa bi wooy kawe waaye nag di an faxan gën tey jëriñu al ikraama tiranga tiranga la ca gën a la ca ëpp solo la ca gën a duuf wasalaam yi ak mucc na nga ko defal saaba yi ak jëm yonente bi alayhi salaatu salaam ba tey mu ne yaa man luhul bisaatu wa tamhiidu zalli ala man ismu sahiidu mu ne yaa man yow yàlla yow yaay ki nga xam ne lëhoo yaa moom lëhoo ñixal na la al bisaatu ak tàlli wa tamhiidu ak tàllal boo déggee bisaatu ak tamhiid ñaari baat lañu wax ne daanaka mën nga ne kalimataani mutaraadifatani rek lañu ñaari tàlli tàlli boo déggee tam tamhiid nag fu ko alxuraan di tuddee ci biir téere bi yàlla bu koy wax day jubloo wax ne xéewal gii ma defal nit ki amul xéewal gu gën a màgg muy walaar la faras naaxa fa nixmal maa yi doona ñun yàlla ñoo tàllal suuf si daal di ne fa nixmal maa yi doona est ce que waaye ñun ñi nga xam ne ñun yàlla ñoo ko tàllal kon yàlla dafa tàllal suuf ba noppi tagg boppam di xam la ne moo tàllal suuf si léeg-léeg itam laa yu bëri bëri danga ko ci gis lu demee ni mu ne alam naj xalil laar da mihaadan ndax nu suuf al arda mihaadan muy ab lal bu la neexee taxaw bu la neexee tëdd nu la neex def te suuf du la mos a sàppi suuf tey mbokk yi boo déggee oto ñaari minute sàppi na la gaal foo mën a dugg avion sàppi na la waaye suuf mosooy dégg ku ne suuf sàppi na ma moom kay danga naan yàggal loolu nag dafa bokkul ci xéewal yi nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala moo ñu ko defal ñu war koo sante laa fa war foo mën a toog foo mën a nekk dana la sàpp ba ci kaw lal sax waaye dox ci suuf bu sàpp la yaa man yow yàlla mi xam ne loxoo ñeen la albisaatoo ak tàlli wa tamhiidu ak tàllal ñaari baat yëpp benn lañ mooy ki tàlli ba noppi tàllal laa fa war salli yàlla nga dool xel yow yàlla ala man ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ismuhu turam sahiidu mooy aji seede ji hmm. léegi xam nga jàngoon nañ mooy koo xam ne yàlla da ko yónni ba noppi mu seede ne yàlla ko yónni léegi fi ne sahiidu bii nag moom li ci sëñ bi jublu mooy ki nga xam ne mooy seede aw xeetam waaye xeetam ñooy seede yeneen xeet yu ko fi jiitu woon xeetam ci boppam moom nga dégg boo demee ci suratul kii al baqara ci hizbu sa yaqulu sufaaw mina naasi maa walaahum an qiblatuhum allati kaanu alayha qul lillaahu al mashriqu wal maghribu yahdi man ilaa siraatin mustaqiim wa kazaalika ja'alnaakum ummatan wasatan ak yonent bi dañ leen def ñu nekk xeet wu digg dóome xeet woo xam ne war ñuy ëppal war ñuy xarabal ñuy yokk ci seen ngëm dara déedéet moo mu ne li takkuunu li takkuunu suhadaa xalan naas kon xeet yonent bi ñoo ay suhadaa u lañ ci xeet yu leen fi jiitoon ñoom ñoo leen di seet bu yowmal xiyaamee ñooy seede yeneen xeet yi lañ defoon ñëpp bu ko defee xeet yooyu dal di ne yàlla ñii naka la ñu mën a seede ta fekk wuñ suñu jamono yàlla ne man maa wàccoon téere boobu bàyyiwu dara dara lépp loo te mooy xoola fu ni ñun xam nañ lañ defoon ñoom ñëpp Moussa xisaam nettali nañu ko non ba ci yonent yëpp seen xisa yi ak seen nit ñi ñëw weddi woon ñi ci gënoon a bon kaccoore te feeñal ko ñëpp alxuraan nettali na leen kon ñoom bu yowmal xaame ñoo leen di seer ñun xeet yonent bi ay suhadaa u la ñuy tudd ci ñoom ay suhadaa u lii takoonu suhadaa ala nasi waaye nag wa yakuunu rasulu aleykum sahidan yéen léegi nag yonent bi ñun moo ñuy seere loolu boo defee soo tudd li dana gën a leer wa yow ma nag min kulli ummatin sahidan alayhim min anfusihim bis la boo xam ne danañu dekkal bépp xeet bu ko defee say gaa yi ñooy ñooy seede maanaam xeet yee lañ defoon yëpp bu ko defee wajji xanaa bikkan laa walaay sa yi daan yow nag sa gaay yi muy sa xeet wi yow yaa leen di seede yow yonent yow yonent bi salaay salaam nga xam ne bëri na ci alxuraan lool lu ko yàlla indi moo tax mu ne ëlli yàlla nga doolu ko la na mooy aji seede ji mooy kii seede xeetat gi wal ali na ñëw ba ci waa wal sax bi ak ay saabaam yëpp tawilu yi faaxe ñi nga xam ne boroom ak dëppoo lañ ci gépp fànn ci waxin ci jukko ci def deflin seen wax du juyoo mukk dañoo dëppoo ci kàddu dëppoo ci ko seen jëf yëpp dëppoo kenn ku nekk yàlla rek li nga waaye nag li man na nga dolli ci moom wa ami nan te nga sécurital avaaxi sama gox li nga xam ne maa ko moom lépp nga xam ne man mën nay gën a sax ba ci biir Sénégal yëpp ndax moom Sénégal sax da koy tuddee baata wattani maanaam ab réewam kon moom mën na ci jublu Sénégal lépp na nga leen jox kaaraange jox leen sécurité waaye jublu sax jëmmi Tuubaa ji rek waaye mboolem dëkk yi mu sañ yëpp day dugaale moo tax ma ne gannaaw ba nga xam ne nag dolli nga xéwal ak mucc ci sahaaba yi nga xam ne boroom ak dëppoo lañ ci gépp fànn wasalima na nga dolli wóolu ci yonent bi alayhi tey ak ci sahaaba yi ak waa këram yëpp waaye wa aami nan na nga kaaraangel na nga jox sécurité ba mu doy sëkk afaax yi sama gox allahu akbar yaa man yow yàlla mi nga xam ne malaa'ikatuhu say malaa'ika yi yaa leen wakiil suhuudu ñiy seede gis nga suhuud la waxut saahidu waxut sahidu kon yàlla dafa jël rëqiib ak xattiib wakiil ko ci jëmmi mbindeef bi maanaam da koy wëkkil lépp lu ñu def ñaari malaaka kii ku dëgër la kii kuy fugloo doomu adama la ñaari malaaka la ñoo xam ne kiraaman kaatibiina lu jàmm bi def ñoom ñoo koy bind te lu jàmm bi def xam nañ bu fekkee safaan la nag moom dañ koy muñal ba xam dana ko tuub bu fekkee tuub ko da ko bàyyi noonu ñu bind ko bu ko tuubee nag ñi far ko dootuñ ko bindati kullu nafsin maaha saaiqun wa sahidun laqad kunta fii xaflatin kon raqiib ak atiid mooy ñaari malaaka yi ñu wëkkil ci jëmmi nit ki lépp luñ def ñoo koy bindi waaye asra ila nag mooy malakul mawti àll si wëkkil mu ne kon yaa man yow yàlla mi nga xam ne malaayikatoo say malaayika yi suhuudi yaa leen wëkkil ñuy seede malaayika seede wuñ de yàllaa leen seedeloo yàlla na xam xam ngeen ne yàlla suñu borom yi tabaaraka wa man mën naa seede mën naa seede ay jaam bu ko neexoon du wëkkil kenn waaye lépp day jàngal nit ñi ak xerante ak wàllu liggéey kenn ku nekk ak liggéey kon nag sëlli yàlla nga dool xool ala man ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ismuhu bokk na turam ñoom masfuudu mooy ku ñu seedeloo gis nga xam nga masfuudu bi léegi loolu xadis moo la koy nettali yonent bi dafa wax ne guddeeg alduma gu ne ëltina gu ne yàlla sunu borom dana ma won li sama xeebi def lépp ci xeeti bon bon ak yu baax yëpp yàlla dama koy won ma jàkkaarloog moom nii nee na bu ma ko xoolee la cay lu bon lépp lépp lépp lépp lépp ma jéggalu ko yàlla la cay lu bon lépp la cay lu baax nag ma jël waaye li ci lu bon yëpp ma jéggalu yàlla yow yàlla jéggal la sama xeet nee na guddi aljuma gune ak guddi altine gune suñu borom da koy gaaral la xeetam def te loolu nit war na ko man a nangu ndax wa qul li i'maloo fa sayarallaahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuuna wa saturadduuna ilaa aalimil xaybi wa shahaada suñu borom nee na jëf leen bu ngeen jëfee yàlla dana ko gis ak yonentoom waaye yemul foofu mu ne wal mu'minuuna ak way gëm yi lu ngeen jëf yàlla dana ko gis yonent bi dana gis way gëm danañ ko gis waaye nag ñoom ñëpp buñ ko gisee wa sa ilaa alimil xëy bi xawees nañ koy delloo bu jëm ci yàlla muy aji xam yu fàgg yi ak yu feeñ ndax yàlla mooy xam lépp comme ñoom ci biir bàmmeel bi luñ ko defal ci lu baax ay doomam ay way juróom da koy gis da cee kontaan waaye jamono jii say way jur baraana ko xam ne way juróom yëpp làqu nañ ci kaw suuf làqu nañ ci biir suuf ñu sul leen waaye bët bi kat ñu ngi def xeeti naqar xeeti bon bon yoo xam ne ñu ngi koy war way juróom ci biir bàmmeelam loolu dafa moo tax mu ne yaa man yow yàlla yow yaay ki nga xam ne malaayikatoo say malaayika yi suhuudu booy seede lañ booy teewee lañ maanaam lu jàmm bi def rek du leen raw dañ koy bind ci sansa kon nag fëlli yàlla nga doolu ko ala man ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ismahu bokk na ci tur masfur mooy ku ñu seedaloo dañ koy gaaral mboolem xeetam yi la ñuy def guddi altine gune ak altine gune mu gis ko la nga xam ne ay njuumtal lépp mu jégalu ko borom bi tabaaraka wa taala kon yàlla nanu yàlla jéggal sunu mboolem bakkaar ba tey sëñ bi di continuer ak ñun ne wa salaatu bi na ñëw ba ci waa këram sax bi ak saabaam yi wa sallima ta nga dolli koolu moom yonent bi waaye wasarax yal na nga xubbi yal na nga xubbee biqati ci sama mbind mii dara man dëndam ñi nga xam ne taallama danañu sàkku xam-xam ko war kon jaalibatu boo bëgg sàkku xam-xam toppal jaalibatu ma raxet door su boo jël rek ngay dugg te doo ko fàtte da am ak xubbeeku ak fattu da ngay dem ba fattu akbar dikkal la yàlla hubbi sa xel hubbi sa dana loo jàng dootoo ko fàtte da nga koy mokkal da koy xam loolu xasida gi da koy jox bat ndax suñ tubaab ko waxal boppam ci biir moo tax mu ne na nga dolli wóolu ci moom moog waa këram yëpp ak saabaam yi moom bi waaye wasra yàlla na nga hubbi hubbi boo ko déggee mooy ku tëjoon rek kon ki nga xam ne dëndam dafa tëju wala xelam lu mu mën a def na tax ko jaalibatu maraqib na nga xubbee bi xatti sama mbind mii te mooy ba maraqib ci turu xasida gi la sax dara man dëndam ñi nga xam ne taalamaa dañuy sàkk xam-xam laa ko war kon xasaayit gi day wóbbi dënnab ki nga xam ne day sàkku xam-xam waaye day yombal itam xam-xam ba loolu itam mi ngi ci biir xasaayit gi mu ne yow yàlla tubtu maa ngi tub ilayka dellu ci yow ilayka jëm ci yow tawbatan ak tuub nasuuha gu sell gu dara raxul comme ni ko yàlla diglee la yéen bi leen ñëpp na ngeen di tuub jëm ci yàlla tuub gu sell amaana yàlla far seen bàkkaar faral leen seen ñaawte fi tàbbal leen ci tuub boobu rek ngeen tuub moo tax suñ tubaa loolu la jëfandikoo mu ne tuub tuumaa ngi tuub ileeka jëm ci yow taw batan ak tuub nasuuxa gu sell boo xam ne du ma ci tegaat mooy yàlla bu waxatee tuub ak jeex na damay buddeeku ci lépp lu dul noonu loo xam ne safaana lu baax la waaye yow yàlla wàccal yàlla na nga def lisaan yi sama làmm yii fasiiha mu doon lu leer nañ waaye nag siiri daal ci sa ngërëm rek maanaam loo gërëm rek na doon làmmañ wu leer nañ ndax làmmañ dafa bokk ci lii mat loo nit ndax yonent yàlla Moussa xam ngeen ne làmmiñu dotam daloon na ko waaye dafa ñaanoon yàlla na ko rabbi ishrah wa yassir li amri wahlul uqdatan min yow yàlla na nga hubbi samay xol na nga hubbi samay dënn na nga fecc sama pas-pasub làmmiñ ndax samay nit ñi boo waxee ñu mën a dégg la ma wax mën a dégg làkk waa ak lépp mu ne kon wàccal yàlla nga def lisaani sama làmmañ fasiha muy aji fasaha fasiha muy aji leer nañ dara dara nga xam ne bu ma waxee kenn du na table naan kii lu mu wax nangam am na ñoo xam ne bu ñu waxee kenn du ko nattaloo da ngay xam li ñu wax loolu dafa am sax ci milieu bi mu ne kon waccal yàlla nga def lisaani sama lamañ fatiha muy aji leer nañ waaye fiiri daa nga xam ne lu yàlla gërëm rek lay wax nga xam ne lamañu du jóg mukk ci lu yàlla gërëm fiiri daa ànd ko ngërëm yaa man yow yàlla mi nga xam ne luxoo ñeenal aljamaalu taar wa tafsiru ak mbég sëlli yàlla na nga doolu xewal xalaa mani ci kaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ismuhoo bokkoon ca turam ya basiiru mooy aji mbég la ji mu ne yàlla yaa moom taar ak mbég yàlla mooy jëmmi taar yàlla mooy jëmmi mbégte ku am mbégte yàlla la ko jox ku am taar te taaram bu ñuy wax jamaal ci la la ko joxee yàlla dafa am jamaal am jëlil ñaar yi da ko taxee moom yàlla am na ñoo xam ne taaram ba rek la leen di wan du leen wan jëlilam am na ñoo xam ne jëlilam rek la leen di wan du leen wax taaram ba lu bëri waaye sëñ Tuubaa nag moom dafa wax ne jës banil jëlilu xaama jay sa sin jaawarani jëmiilu xaama jam sa sin nee na kii ma ñor di ma dem ci tukki booba daf ma doon teg nattu kooku nu mu tudd mooy jëlil yàlla kon da doon jëflanteeg moom ci jëlilam ba mu nekkee ca xaama jay si ndax boobu natt bi la nga xam ne foofu moom muñ rek moo ko fay génnee waaye bi mu demee ba njaarim atum jant sin mille trois cent ay quarante trois yooyu léegi yàlla nag jëmee nag nee na jaaware léegi nag dëkkaale naaj jëmiilu xaama jam sa sin xaama jam sa sin ci laa dëkkaale bi jëmiilu yàlla léegi jëmiilam rek la may war la may wan nga xam ne loolu toppoon na ko ba caati gànnaar yi yàlla jëmiil la doon jëflante ak moom mu lëxoo ñeel na la ak jamaalu taar yaa moom taar kon taar kenn du ko xëccoog yàlla wa tafsiru am mbétt yaa ko moom kon nag sëlli jullil dooleel xewel dooleel yërmande xalaa ma ne ci ko yontu bi salaay salaam mi xam ne ismaho bokk na ci tróoy basiir mooy aji bégli ji yàlla moo ne ko mu basiran wa nasiran dañ laa yónni ngay bégal ñi la gëm bégal gi nag mooy fan aljana la leen di jé bégalee aljana la leen di bégalee wa ali salaatu na ñëw ba ci waa këram wa saxbi ak saabaam yi wa sallimi ta nga dolli ko wóolu waaye wàccaale yàlla nga def yow yàlla bi jaahi ci dara moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam xëlla mii sama xalima gi di daa kat muy ngërëm muy sa ngërëm mu ne boo jullee ci yonent bi ak waa këram ak saabaam yëpp dolli ko wuulu na nga def ci daraja yonent bi sama xalima gi muy sa ngërëm kon jaali bitu maraaxib ngërëmal yàlla la ndax booy xool ñetti yoon dajale nañ ko ci bii mu ne baabari daa ayaa bi kalisaam dee nag mu ne ngërëm ak barari dan fan jaay kon nga xam ne kon fii mu ñëw ne wàccal yàlla nga def bi jaay ci darja yonent bi xëlla mii sama xasida gi xëlla mii sama xalima gi muy sa ngërëm yow yàlla ma jas la rek waaye xasida gi la ci jublu yaa man yow yàlla mi nga xam ne min ka dana bàyyi koo ci yow illee jëm ci ci man suñ tubaa taat yi di ma dikkal bu soo ay mbégte xoolal mbégte moom doon wax ne yàlla moo ko moom jamaal jëm doon wax ne yàllaa ko moom léegi nag comme yàllaa ko moom léegi nag ñaan na yàlla mu may ko ci mbégte moomu ak jamaal jul te muy taaram boobu na ne yàlla nga koy commencé envoyé nag mu moo tax mu yaa man yow yàlla yow yaay ki nga xam ne taat yi dana dikk ilay jëm ci man min ka ma ngay bàyyi ko ci yow lan mooy dikk bu saru ay mbégte ay mbégte daal sëñ Tuubaa dootul yàlla ndax dafa dem ba nga xam ne du gis lu naqari yàlla du dégg lu naqari yàlla du wax lu naqari yàlla ndax nafa maaliki maasaa ani xam la ruxeet te loolu xaama accès la ko waxam xëy rek li yam xaala nafa maliki maasa ane moo ma dàqal lépp lu ma naqari njëkk ma koy gis du ma gis kon sëlli yàlla nga doon xol alaa ma ni ci yonent bi sallallahu alayhi xam ne ismoo bokkul ci turam xam nga yonent bi dañ ko bégal ba noppi mu dog di bégal jullit ñi nag yàllaa ko bégal ba noppi wan ko ay loof maam ñëpp jéggal ko bakkaram yëpp yu njëkk yi yu teew yooyu dikk dañ ko njëkk bégal ba noppi na ko béggalal saw xeet ak dog koo yónni na ko bégalal saw xeet hmm. moo tax ma ne sëlli yàlla nga dool xel alaa ma ci yonent bi salaatu xam ko bégal moo ko bégal du moom moo bégal boppam wala keneen de yàllaa la topp ci aljana ngeen di dëkk kon mu basaru dafa am basiru dafa am waaye nag salaatu gu aali wa son bi ak def ba tey bii sama wax ji xayral kalaam muy ngën ci wax kalaamee sama xasida gi xayral kalaam yi ngën ci xasida kon xasida gi allahu akbar kon xasida gi sëñ Tuubaa ko waxal boppam te ñaan la goo xam ne sunu borom nangal na ko ko ndax maddali al husna wa maddali sayat man lii yaquluha ka qabla ya njëkk may tàllal la wax bala may tàllal yàlla may na wax mu ne yàlla nag gannaaw boo jullee ci jëm yonente bi ak waa këram ak saabaam yëpp na nga def sama xasida gi muy ngën ci wax maanaam muy ngën ci xasaay ngën lu ñuy jàng ngën ci lu ñuy bëgg na doon xasida gi